dafa ne ki ciy toog na xam ni ci malaanu wasifa la toog lan mooy toog ci malaanu wasifa mooy toog ci diwaanu Mawlaay Cheikh Ahmada Tijaani gis nga boo doon xëy suba yëpp di wéer du ba xaaja guddi di jàng alquran ba xaaja guddi di def lu nekk ci wàllu yu di def lu nekk ci wàllu barke parce que lépp lu nit di zikr mhm. wasifa boobu moo ko ëpp doole kon kooku bu bokkul sa sa ay dog rek dafa mel ni say dog yi yu pare manqué ndax lu tax nag euh, c'est normal diwaanu Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane la te diwaanu Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane moo am supériorité ci diwaanu yëpp kon wasifa Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane nee boo toogee ci malaan bi ak malaan bi teggin ba mu laaj nga motal teggin yi condition yi ba lépp daje ci yow na xam ci li nga toog lan la xanaa boo ci toogee kon kon dara du la jaral nga bàyyi ko beneen bi nga xam ne war nga ko bàyyi xel mooy nga bàyyi xel ci gan gi nga xam ne du la gane si lu dul nga toog ci malaan moom bi Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani ñi ni àndal du ñu ñëw lu dul fekk yaa ngi ci malaan wëj fati ci yow boo amee nag xëy na màqaam boo xam ne mën nga mën nga toog sa néeg ñu ñëw ko ah kooku bokkoo ci am nga yeneen màqaam mais bu la leeree ni daal journée bi pour nga toog ak ñoom foog nga toog ci malaan nga fexe ba seen toogaay di la raw kooku sa erreur kon hikma boobu la hikma bi mooy teggin ba melokaan ba façon d'appréciation ba bëgg-bëgg ba ba noppi xam ci li nga toog tiim ko lan la soo xamee loolu yëpp nag soo ngay mën nag xam ni daa ci am gan yoo xam ni munoo am gan yu toll ni ñoom muy yonent bi muy Mawlaa Cheikh Ahmadou Tidiane si noonu nag ci nga mënee xam koon doole bi nekk ci wajifa waaw mm-hmm. ci nga mën a xam moo tax ci tegginu malaan boobu moo Mawlaay Ahmad Tijaani dafa ni teewlu ba it def ci am solo parce que su fekkente ni euh, diirul vingt cinq minutes wala trant minutes mënuloo ci teewlu ci malaan waaye nooy teewloo ba àgg ci yàlla surtout boo ci ñëpp di waxandoo sax kon nooy teewloo ba mën àgg ci yàlla ndax wasifa bi communion la communion bi mooy lan mooy diggante yow ak xayb waa xayb su ñu ñëwee su fekkoon am nga pouvoir gis leen ñuy jàng jawharatul kamal nga ànd ak ñoom ñuy jàng salaatul fatiha nga ànd ak ñoom loolu mooy teewlu ba kon loolu moom laa sama décision da kay bañ parce que lu tax day wax ni béréb boobu du béréb boo xamee ni pour réfléchir ci leneen la mm-hmm. dafay bëgg daal sa réflexion yëpp dellu si wàllu lumière dellu si wàllu tegginu béréb bi hmm. dellu si wàllu teraanga béréb bi hmm. waaw beneen boo xam ne nag moom Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani dafa daan wax wax na ko Seydi Harsi seetaloo ko Mouhamad Damraayu mi ngi toog mu wax ko Mouhamad Damraayu ni ko na nga ko wax ñi ci xadara bi maanaam xadara faat ba ni ko képp ku ko si def na jug dem ñibbi waaw Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani nee na képp ku ñëw di wasifa di nelaw wala nga ñëw xadaratul jumaa di nelaw nee na demal ñibbi loolu lay digal ndax nee na bu la jegee daf lay perte ñëpp a seede ni ku mu perte dem safara waaw naa ne ku xam moo daal Ahmadu Tijaani ak laabiram ak na mu mel ku mu dem ba nga jaral ko mu jug waaxu dóor la mbéj te waaxul rek dem ci xaalam kon yow xaari na la parce que wax na ko ci dëgg la wax na ko Mouhamed Daouda nee na ku fi toog ci wasifa di nelaw mooy ku ci xamul dara ba na bëgg si dara mooy ki ki may wan maanaam moom maanaam dafa ni ci toog ci wasi fët bi nelaw mooy ki may wan man Mawlaay Cheikh Ahmadou Tidiane ni nekkati sonn bi nga sonn ci bëgg yonent bi ak lii yëpp man man sonn ma ci man maa ngi nii di nelaw moom noonu la koy gisee waaw waaw moo tax il faut faire très attention là-dessus waaw xaw ma Mawlaay Cheikh Ahmadou Tidiane lépp mais am na lu ma xam ci moom dama ko xam-xamin boo xam ni li ma leer tey nii ngeen dégg ko soo demoon ba ci malaan wasi nga dem ba yàgg bëgg nelaw nga xalaat ni i sang bi waxoon na ni faas waxoon na ni ku nelaw fees na rek lay bëgg mais nga xalaat nga ni i fii du faas garawul naa nelaw li ma leer dana la fees même bu jël wa décision fees la dina daw ci saw yaam ñëw fees la ndax daf lay war ni fii faas la <laughs> man xam naa ko li ma leer ni même bu jël woon intention fees la dina la fees bis boobu ndax foofu mu wan la fii faas waaw ñu wan la ni leen waxoon ba léegi ña ndax ñoom xamuñu ay waxu ñetti fan wala ñeenti fan benn wax la ñu xam te wax jooju mooy wéy ba biir aljana hmm. changement du jaam Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani li mu choisir ni maanaam moom la bëgg nga am ko ci moment bi ngay wasifa mooy nga nekk ci état boo xam ne état d'éveil la maanaam yaa ngi xoole amoo benn euh, trouble boo xam ne mi ngi ci yow benn bi yaa ngi yaa ngi yaa ngi tudd baat yi suñu noppi woon baat yi mën nga ko continuer di tudd beneen bi yaa ngi bëgg li ngay def ndax moo la tax ñëw waxtu wii mooy wasifa bi da ko bëgg beneen bi mooy respecté nga ko yemu santaane yaa ngi ko def beneen ba mooy solo koo xam ni gëmu ko yaa ngi toog amee teggin bi leer la ni yonent bi day ñëw ci loolu nag ci suñu wax dañ lay bindal yi wala dañ lay may ay ngëneel mais ci loolu la ñuy basé wu pour nag may la walla ñu bindal la yi parce que déjà moom yi mu yi taxoon mu jël kaalaam daal di koy tàllal laal ko ni tafaddal yaa saydil akbar tarbiya boobu mu amoon moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane yi nga xam ne sax kenn mënul am tarbiya bu ñu jege mais au moins nga jëm roy loolu nga roy loolu sa diggante ak moom